Euh, sa déclic nan la ñëwee bu déclic bi ñëwee ba pare ñu laaj la lan la sa carrière di représenter pour yow déclic bi nu mu ñëwee ak sa carrière maanaam lan lay représenter ci yow ak quelles sont vos sources d'inspiration. damay commencer samay source d'inspiration samay source d'inspiration mën naa wax ni àdduna la rek c'est la vie d'ailleurs mooy sama titre album bi mujj. mais nag lépp dama koy delloo ci musique samay source d'inspiration c'est le voyage ndax ñun ay haalpulaar lañu boo demee ci biir Afrique tur bu nekk jox nañ ñu ko Fulani Fulbe haalpulaaren mais loolu lépp boo xoolee suñu cosaan ñun ay nomade lañu nomade nag amul frontière ndax àdduna bi foo ci dem di yóbbu jàmm di fa jëlee jàmm di ko partager ak beneen xeet ñooñu jàng si yow jàmm nga jëlee si ñoom leneen di ko joxaat ñeneen defe naa ni yow jàmm rek moo la tax a jóg te Haalpulaar yi Fulbe yi loolu moo leen tax a jóg échange ak weccantey xalaat ak xam-xam mën naa wax nag sama source d'inspiration boobu dafa ma dugal ci li nga xam ni daf ma tax a voyager ci àdduna bi dajeeg ñu bare bare bare ñoo xam ne ñi wax dëgg yàlla mosumoon yaakaar ne dinaa dajeeg ñoom ci sama àdduna ay musiciens ay personnalités ay doomi aadama yoo xam ne jàng naa si ñoom lu bare bare. mën mën nga ma limal tuuti rek ci ci euh, musiciens yu mag yi nga taseel. musiciens yu mag mën naa wax Carlos Santana mën naa wax Bono bi nga xam ne moo nekk ci YouTube ba Mumford Sons mën naa wax Brian Eno bi xam ne moom moo produire euh, David Bowie li gën bare ci moom man ak moom bokk nañ def ay morso mooy laam lam bi nekk ci Lam Tooro. Mhm. Screaming Orphans yoo xam ne ñoom ñooy backing vocal Sinead O'Connor euh, daanaka artistes yu mag yi nekk ci àdduna bi yëpp yëpp yëpp macha allah daje na ak ñoom. Mm-hmm. donc euh, mën naa wax ni ñoom Stevie Wonder ñoom ñëpp daal ku lim juum. Euh, mais nag ñi ma gën a marqué mooy artistes yi mag yi xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Afrique ndax ñoom ñooy sama source d'inspiration. waaw mooy fant Damba. Kouyaté Soriou Kandia Ndiaga Mbaye sama grand frère yal na ko yàlla xaare aljanna ak ñu mel ni moom ñoom laay mbóob mais su ma gëstoo nag ba ci biir a biir biir mën naa indi góor gi Samba Jabare Samba ndax dafa nekk koo xam ne su ko daan déglu muy way damay xam ni kii gawlo piir la waaw waaw kon nag mën naa xam ni mën naa wax ne samay source d'inspiration c'est la musique traditionnelle mhm. Kouyaté Sori Kandia wax naa ko fi léegi mais nag Mansour Seck ndeysaan waaw yàlla moom ma booleeg moom ma jàpp si loxoom ànd ak moom won ko àdduna bi mais moom itam mu jàpp sama loxo dugal ma ci biir ngéwal ci famille géwal yi ndax man ci balo laa moom muy géwal su dul kont su dul wonte Mansour Seck yelaa bi may woy nii duma am sax droit di ko woy mbaa di ko jëfe wala di ko jëriñoo kon nag samay source d'inspiration bari nañu sama déclic déclic bi def naa ne ay déclic yu bare la benn déclic bi ci gën a am solo mooy le Daande Liñul bu ñu ko créé concert bi gën a mag bi ñu def fii ci biir dakaar ba Manu Dibango jóg taxaw Ari Belafonte jóg taxaw waa système des nations unies ñu jóg taxaw maa ngi jàpp si loxo sama doom Omar ak aline Guissé mi ngi am 11 ans 12 ak Ibra Guissé ak Ngaala Guissé ma jox leen ku si nekk si ñoom pitax bu weex ñu dugg stade Demba Diop stade baa ngi fees dell. macha allah maa mm, ñu doon def concert boo xam ne waa UNICEF ñoo ko organisé. Mm-hmm. man ak Youssou ñoo ko doon def mais bi ma dugg see. stade bi yëpp dafa jóg taxaw. mu am ngelaw bu sedd nag bu dugg si biir stade bi. Mm-hmm. ma ne Dibango nee na boobu rek laa xam ni am na étoile bu bees bu juddu fiir si biir mm-hmm. Sénégal. mu nekk déclic. ci la wolof yeeg bambara yeeg séeréer yeeg manjaago yeeg soninke yeeg ñi nekk si biir Sénégal ñëpp ah, am na artiste bu bees bu jógee Fuuta bu ñuy wax Baaba Maal kooku benn déclic la mais déclic bi ci gën a am solo te dafay firndeel ni lépp lu am rek yàlla la mm-hmm. dañu dem France mm-hmm. euh, Kan Diallo ak euh, professeur Amadou Dia ñoo mu yónnee billet ni ma ñëwal vacances ma dem def fa trois mois woo Mansour mu fekk ci ma foofu Kan Diallo jël xaalisam jox ñu ko ñu dugg studio fekk ñu def tournée boo xam ne bi Cheikh Tidiane Gadio àndoon na ci ak ñeneen i ñeneen ñoo xam ne ñi wax dëgg yàlla euh, mënuma fàtte li ñu def ci ak côté de Baaba Maal Aziz bi nga xam ne mu ngi nekk fii ci biir euh, lépp luy yëngu ci biir musique man ak moom ñu bokk kër ñu ànd def benn al benn cassette boo xam ne mille exemplaires lañ ci tiire mu tudd Jamléli ñu yónnee cassette bi ndakaar am benn Gambien bu jël kaset bi yóbbu ko Gambie di ko teg benn tubaab di romb buntu kër gi dégg musique bi taxaw ñëw nekk musique bi neex na ma jaay ma kaset bi ni mu jaay ko kaset bi def na jaay na ko lu bari bari tubaab bi jël kaset bi yóbbu ko Angleterre kaset bi dugg ci benn maison de disque bu ñuy wax Stern Stern génne première euh, duplication bu Jamléeli ginnaaw bi mu signé ak ñun contrat Stern boobu génne kaset boobu ak CD temps yooyu mi ngi soog a commencé ci la Chris Blackwell dégg musique bi ne gone gi bëgg naa signé ak moom donc loolu ma dugal Island Record déclic bi yëpp fa la jóge donc daandi li ñul bi nga xam ne mille exemplaires lañ ci téere woon moo ñu ubbil buntu àddina bi ba daandi li ñul bii mën a dem wër àdduna bi yëpp loolu déclic la yàlla rek moom mooy buur <laughs> yàlla rek mën yàlla rek mën gis ngeen noonu ñoo ngi leen di fàttali ki vous êtes toujours euh, émission bi nga xam ne mooy Kër Salaam ma ñëw seet si sama mag Baaba Maal waaye tey man kontaan naa kontaan boo xam ne macha allah yii ngeen fi dégg yëpp mosu leen ko dégg fenn Kër Salaam ngeen ko déggee euh, sa carrière lan lay représenté pour yow. sama carrière dafa représenté pour man sama moyen d'expression ndax euh, nit ku nekk am nga jikko xam nga salaam man su ma tukkiwul dem ma tournée jógewuma fi Ndakaaru dem Podor seeti samay bokk ku ñëw sama kër fi nga may fekk te loolu jaaxal na ma baaba doo dox ba gis ko fenn. waa sama ku <laughs> sama kër. waaw fii nga may fekk. mais nag timidité boppu peut-être li yàlla def ci man la mais daf ma may beneen yoon boo xam ne bii ak beneen voie pour ma mën a génnee lii sama xel di junj. Mm-hmm. ndax dama xippi samay bët di xool nee nañ kuy tukki. Mm-hmm. yaa moom sa xel. Mm-hmm. yaa moom sa nopp. yaa moom say bët. te kenn mënu laa teree jàng. li may jàng nag di si am opinion sama carrière bi mooy musique bi may def moo may may buntu pour ma mën di ko génnee di ko wax di wax sama opinion di wax sama gis-gis di wax samay xalaat di wax ni ma bëggee àdduna bi di wax ci mbëgeel di wax ci euh, kóllëre waaw El Hadj euh, kontaan naa léegi nag ma laaj la nga defal ma rek benn anecdote ci Angleterre sa dëkk anecdote de am na bari na ay anecdote benn rek benn mooy daane la ñol bi ñu yàlla yóbboo Angleterre ñu def tournée signé nañu suñu contrat ak Island Record ñu ne ñu dañ leen di dugal studio ngeen def premier album ñëpp xam nañ nag Island Record ñoom musicien bu ñu signanteel contrat de production ñoo lay wax li ngay def. ñoom ñoo produiroon euh, ñoo produit Bob Marley ñoo Bono ak YouTube fa la ñu jaar. ak yeneen yeneen i doomi aadama ay africain Salif Keita Angélique Dio mais nag man bi ma yegsee dama ni leen man duma ma def musique euh, moderne bi ngeen bëgg musique traditionnelle laay def ñu jël risque bi dañu luy studio pour fanweeri fan def naa ak juróom lañu waroon dugg ci biir studio bi enregistré album Bayo mais tellement que ni ñun dañoo toog Sénégal di répété suñu moosu bu mu mokk ruub bi ñuy yegsee Angleterre juróomi fan la ñu def enregistrement baayo ñu mixé ko masterisé ko fas ko yéene génne mooy album baayo boo xam ne moom itam comme jam léegi daf ñu ubbil bunt yu bare. waaw boobu li may def ëpp na. mais nag balaa ñuy def album bi dañu yegsi si biir euh, maison de disque bi. man ni leen nag man dama ànd ak ay musicien balaa may dugg studio foog li ñu waxante ndakaaru ngeen joxe avance li ci des ngeen war ko joxe fi da ngeen ma koy jox ba mu mat sëkk parce que dafa am ñu topp sama ginnaaw. ñu ni ma da ngay dugg biir studio ba pare ñu soog la jox loolu ma ne bu ngeen ma ko joxul samay billet laay jël ñëbbi ndakaaru. ñëw fu la waaw. leen boo dee dangeen di xayma. Mm-hmm. bâtiment bi nga xam ne moom mooy bâtiment Island Record étage ba fees dell. ak ay bureau ak ay personnel ñun sunu musique africaine ci kaw loolu la nekk donc xaalis du ko jënd leneen du ko jënd fulla moo ko jënd ak fayda da ngeen di def loolu mbaa ñun ñu ñibbi suba te du ngeen ñu fi tere am ku ne tonet jógee foofu tuddee su Suzanne Newman bi mu yegsee mu ni kii ak saalif Keita fayda bi nekk si ñoom jox leen seen mbir ba mu mat sëkk ñu defal ñu lu leen def ñu dugg enregistré leen bàyyoo en cinq jours ñu mixé def lépp ñun ñu ñibbi si Ndakaar

ci la bokkoon <laughs> waaw bi ñu yegsee fekk ma tàggu suñu président abdu juf ne ko damay dem wante nag sama mébét yëpp mooy daje ki nga xam ne moom la africain yëpp bëgg a gis mooy Nelson Mandela te yaakaar naa nag boo ci taxawee dinaa ko gis mu bind benn lettre ba taaxal ubbiwu ma ko nag xaw ma lu ci ne ñu organiseel ma un rendez suba teel vers 10 heures du matin ma ànd ak euh, personnelu festival bi Mandela recevoir ñu ci bureau am mi ngi nekk euh, président de la république bu bees ci biir Afrique du Sud mais gis nga salaam bi mu yegsee ba dugg ci biir salle bi defe naa lumière ak fraîcheur bi nga xam ne moom la àndal ak naataange ak espoir boo xam ne mën nga ko liir ci kanamam ak mbaax boo xam ne moom la yàlla def ci moom foo ko natt rek weesu na fa bi may dem. dama ne comme Sénégal laa jógee ñun nag teraanga yàlla moo ñu ko jagleel dama dem ci ku ñuy wax magee ndiir tailleur mu ñaw benn ñetti morceau bu wert maa ngi ànd ak Ousmane Mbaye ànd ak Mbassou ak suñu délégation yegg si ne Mandela indil naa la lettre bi waaye man si sama bopp dafa am loo xam ne dama la ko indil mu ne ubbil ma ubbi ko muy ñetti morceau yi mu ne kon nag solal ma mbub mi ma jël mbub mi solal ko mu jaagar jaagar fecc tout sama kanam loolu mën naa wax ni ñi ko am bariwul wa loolu Londres la ah, trafe Trafalgar Square euh, la reine d'Angleterre ak Tony Blair invité Mandela ginnaaw bi mu génnee prison di ko sargal ñu invité artistes yu bari nag mel bii bu Spice Girl mi ngi fa woon The Corrs euh, ñoom ñëpp daal ñu ngi fa woon mais bi ñu paree dafa ni artistes yi dama leen a bëgg a ci bureau ANC yi ci kaw parce que bureau yi dañu sëpp place bi ñu wax Trafalgar Square bi ñu yegsee mu ñaax ñu nag ci rôle boo xam ne musicien dafa ko war di jouer mu ne ñuy yéen musiciens yi war ngeen mën a xam ni seeni baat dina yegg si foo xam ne baatu benn politicien du fa yegg jëfandikoo leen loolu ngeen yee doomi aadama yi ngeen boole doomu aadama ñu nekk benn bokk ndey bokk bàyyi sans distinction de race et de couleur ngeen fexe ba suuqat li nga xam ne mooy cohésion sociale doomu aadama yi déggoo ndax lépp loo xam ni jot nañ ko ci loolu ñu mën ko jox génération xam dañ ñëw suñu ginnaaw mu wax ba pare geesu ne woyal leen ma benn woy nag comme ay musiciens maa ab baat Mansour Seck rek yuuxu Ibrahima Ibrahima yellembo di amadan sire rotono ñalbene awogu cimbelani After the show, Mandela asked the musicians for a favor. But I thought uh, perhaps you know you could send us away with a very lovely song. Eh? Only one man knew how to reply. No guitars, no guitars. Yes. Yelle modi amada sire rotoranyal mu kontaan mu kontaan lool ndax eh, xam naa ni ci biir xolam xam na ni sans instrument dëgg la ñu fa nekk ñëpp ay ndaanaan lañu waaye ñun africains yi yàlla jagleel nañu loolu parce que doo jógee Afrique du Sud mbaa nga jógee Sénégal wala Mali te bu ñu la nee rek nga yuuxu sa baat génne li nga war a génne.